asalaamualeykum wa rahmatullah sopp yi nga xamante ni yéenay bàyyi xel seen télévision Tektal TV ñu dikk ak yéen ci naafila bés bi guddi fukkeel gi ak benn sopp nañ ku ci julli ñeenti rakaa rakaa bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng inna anzalnaahu juróom-ñaari yoon xul yaa ayyuhal kaafiruun juróom-ñaari yoon xul huwallahu ahad juróom-ñaari yoon bu sëlmalee mu wax laa xawla wala quwata illa billahi aliyil azimi mu wax ko juróom-ñaar fukki yoon maanaam 70 fois julli ci yenent bi salallahu alayhi wasallam 70 fois des na ko jéggal bakkaaram yu njëkk ak yu mujj te yu ci nekk des na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla ak am at te dana mel ni it ku goreel junniy jaam saraxe junniy diinaar reggal junni ñu xiif woddu junni ñu rafle ak leneen ak leneen mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral nga dellu ci xuratu ayni bu Sëriñ Suhaybu Mbàkke page 145